ay tuuma yoo xam ne tegaat na ko. Euh, am na am na kuy wax am na. dégg ko micro rek mën a waxtaan ak moom. alors tur bi la. di bàyyi fii Fatou actuellement nii bon booy dañu ne xam nga problème Sonko bi démb ah, donc déclaration bi rek yi tere affaire yooyu noonu moo tax gars gën a fipp tamit booy tamit ba léegi nii ñu ngi si kawam parce que instant dañoo jëm. dañoo forcé restaurant yi dugg gratuitement lekk gratuitement ndax affectation bu ñu uppee mul fay ngeen toog lañ yi def tamit en plus tamit mooy loolu ñu ngi ne après ñu ñëwaat dañuy jël tey ataay après dugg ñëwaat ko léegi de toute façon boobu situation biir moom xaw na compliqué parce que am na ñoo xam ne ñu ngi commencé am ay problème respiratoire parce que xale jigéen ñi ñu daan lu bari mais nag sant yàlla quoi situation xaw na compliqué mais booyee na nañ ma kaay ñib si kaay ñib si kaay ñu alors que nii bon mënu ma dégg seen teg digal fa lekk ma dem def wax quoi parce que yoonu jàmm sariwul ndax jàpp ngeen ne li li ngeen def ni dina faj dara mais euh, parce que li yàgg nekk fajul dara parce que chaque jour chaque chaque état ak nu demee parce que problème bu su day am dañuy wax ba sonn dañuy raam ba sonn deux mois trois mois gars yi ñuy daw duñu ci baat ndox mi baaxul feneen ak feneen foo si prend day bëll si wax dara suñ njiit yi seen bopp lañ fi nekkal seen intérêt lañ ñu def nii ndax état def mais mosuñ amul benn solution jusqu'à présent amul benn solution ci leen nag lañ amul solution sincèrement pas bien sûr suñu ay conditions ak tamit suñu ak même temps affaire problème Sonko bi parce que tamit jaay démb yéen ko jaay doole dëgg dëggantaan la émulation bët kon donc ñun tamit loolu lena xëyee tamit affaire métti trop ñu dem depuis dem lañ ko naroon commencé mais tamit day tamit suba tey à part de sept euh, euh, ndox mu set tamit bokk na si. fii ah, ndox mi parfois day bëri tout le temps comprendre nga condition bi doon baaxul burti balaa nga da ngay wax ba sonn dangay ngay raaf 5 du matin ba ay 10 heures du matin doo am dara wala ñu raawaat ma ñibbi ëllëg prochaine fois nga ñëwaat loolu métti su koo xamante ni donc xale mu ndaw nga ñëw daan sa doole ñëwoo pour sàcc ñëwoo pour def leneen nga ñëw da ngay pour jàng kon donc. kon dañuy jàpp ne condition yi c'est pas c'est pas comme ça parce que rafetaay taaral bi nii c'est baax na nii mais boo duggee si biir yow elmi yi mun nekk tant que nekkoon si biir ngeen ko ngeen toog ak ñoom xam condition bu ñu dund ngeen doog a xam bu baax la mën a ci biir ñu mais jaar jàll rafetaay bi nii kese mais lu si biir nii non c'est n'importe quoi merci beaucoup. de vrai voilà Ablaye comme ni ñu ko gisee rek moom étudiant la euh, mi ngi ci daar ju kawe ji di université bu Cheikh Anta Diop moom ci biir la jógee mi ngi ñuy euh, wax tamit li nga xamante ni moom moo xew actuellement ci ci ci biir dégg nañu kàddu yi nga xamante ne taataan nañ ko ci moom ak euh, problème ba nga xamante ne am na ci seen restaurant ba foofu noonu yooyu yëpp moom andil nañu ci ay ay leeral moom ci ci ci ndongo daara yi di université bu Cheikh Anta Diop. ci la ci la bokk euh, ba tey rek ni ngeen koy gisee Ablaye saxaar si ma ngay woy di di jóg tàkk-tàkk bi ci biir université bi aussi tamit mi ngi woy di di jóg euh, mu mel ne ni étudiants yi ñoom ñoo dajale mbalit mi nga xamante ni nekkoon na foofu ak ay pono taal ko ci biir fi nga xamante ne moo di université bi euh, ndax jàmmaarloo bi nga xamante ne amoon nañ ko seen digg ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo di way takk deri di policiers yi waaye ba tey rek ma fàttali leen ci pavillon A bi nga xam ne jàkkaarloo nañ ak moom sànq gis nañu ko ci image yi am na ci ay étudiants yoo xam ca kaw yéegoon taxaw fa waaye dañ leen lancé ay grenade lacrymogène ñu daal di tasaaroo foofu man li nga xam ne tey jii maa ngi koy wax ci loolu parce que dañu jàpp ne euh, takk der yi bu demee ba am fit euh, fi nga xam ne euh, moo di ci biir université Cheikh Anta Diop gis nañ ne porte centrale bi nga xam ne mooy porte bu mag bi policier mës sa am fit dem di nañ ne jamono ji ñu génn mooy manifestation bi fi amoon ci kaw mars ba ak ba fan yi ñu génnaan ni université Cheikh Anta Diop ñi takk der yi dañuy dugg ba ci biir biir biir biir biir am na ci seen benn ndaw boo xam ne mu ngi jot a jot nañu jot nañu wax li nga xam ne tey jii ne leer na nañu mooy que ni étudiants yi ñoom ñoo xëy ah, dem ci restaurant yi ah, parce que bu dafa bëri ah, argentin ñu ngi fi central ñu ngi fi self mi ngi fi parce que ñun dañoo maîtriser fi nga xam ne moo di moo di ci biir restaurant yi mais gis nañ ne affaire bi metti na lool lool lool Ali damay bàyyi nga wéyal ma woo ki nga xam ne moo di Pape Abdoulaye Gueye mi ñuy jox information bi ce matin à 6 heures du matin mais xam nañ ne ni ñu ko mën a déggee mooy képp ki nga xam ne yaa ñu seetaan université Cheikh Anta heures ba à ah, onze heures jëm midi ah, mi ngi xoyam ah, comme ndongo daara bi nga xamante ni moom ci daara ju kawe ji la nekk gis nga kàddu yi nga mi ngi ñuy xamal ni ñoom du du yëf yi du du rek suba sax ñoom i tamit dañuy yëngalaat fii nga xamante moom moo di université bi ndax am na lu bari yoo xamante ni ñoom ñi ngi koy ñaawlu ci doxalin bi nga xamante ni ñii jiite réew mi ñoom i tamit ñi ngi koy doxalee réew mi ñoom ñu nekk ñoo xamante ni dañu bokk ci ñi nga xamante ni ñoo gën a fës ci ñi koy naqaru ndax étudiants yi euh, ñoom ak seen diggante ak nguur gi saa su rek dina am ay yëngu ay naqar yoo xamante ni dañuy génn di ko fësal ba tax na ñii di auto police bi tey ñoom saa su ne nag auto police daan na nekk fii ci rond point bu euh, université Cheikh Anta waaye tey dañu gën a renforcer waat li nga xamante ni moom moo di sécurité bi nag li wundu loolu dañuy njort rek yëngu-yëngu yi nga xamante ne amoon na démb am moo gën a tax sax ñii di takk der yi yokk nga xamante moo di disposition bi nga xamante am na fii ci buntu université Cheikh Anta ba tey ñi ngi seen fi nga xamante ne moom moo di ci ci université bi ay ay yëngu-yëngal yoo xamante ne am na fii nga xamante ne moo di ci ci ci ci ci rond-point bi jàkk janwaaka fi nga xamante ne moo di université Cheikh Anta Diop voilà xam naa ne bu ñu fi defee li nga xam ne moo di ay waxtu tuuti euh, euh, pour suñuy mbokk internet euh, mën ngeen continuer di ñu suivre rek parce que noonu la ñuy continuer nga xam ne moo di ci sa kër góor gi parce que le président Ousmane Sonko dafa nekkoon euh, euh, dem euh, ba léegi nii wala takk ne as jullit la te kenn moo discours am jaamu yàlla lay wax ñu ko bëgg a xool nag Ousmane Sonko day dem dem fi nga xam ne mooy di résistance surveillé lépp li nga xam ne daanaka am nañ ci incha allah dinañ ko mais xam ne fii université Cheikh Anta Diop bu Dakar à ce moment calme léegi suñu chauffeur da ñëw tuuti Babacar bu ma mënee jege Euh, ñu avancé euh, war dem fi nga xam ne moo di ci euh, diwaanu cité kër góor gi ñi nga xam ne tamit am na benn manifestation bi nga xam ne war naa am moo di ne moo di ci ci xam ne moo di wal fajiri fa nekkee fa la nga xam ne moo ci diwaanu liberté 6 xale yi ñoo fay nekk di ñaxtu par rapport ak tëj bi nga xam ne tëj nañ ko wal fajiri mais xam leen ne université Cheikh Anta Diop 6 du matin à midi mi commencé woon tàkk mais dem nañ jamono ji xaw naa wàññeeku tuuti mais dañuy def nak dem xooli résultat surveillé bi nga xam ne def nañ ko wala président Ousmane Sonko aanu waaw ca nu nu Ablaye comme ni nga ko waxee noonu dina ci baax euh, bu chauffeur bi ñëwee rek dañuy dugaat continuer live bi ak ñi nga xam ne suñu ay mbokki internet euh, pour mën leen a toppal ndax ki nga xamante ni moom moo di Ousmane Sonko démb gis nañu takk der yi ni nga xamante ni euh, yendu nañ ko fooyee nga xamante ni foofu foofu foofu la dëkkee tey naka waxtu juma ku ne xam ne Ousmane Sonko. dafa nekk résidence surveillée Ali voilà ba loolu moo tax dañuy pour ñu dem xooli ki nga xamante ne moom moo di Ousmane Sonko dinañ ko bàyyi aussi tamit mu génn dem amal waxtu juma bi dem julli ji ko am déet dañ koy teree génn ba ba ba léegi euh, foofu ñu dem tamit ñu xooli loolu noonu pour mun koo dégtal ñi nga xamante ne ñoom ñoo di sunu ay internautes. man Ali man li daanaka jàpp naa ci ba xam ne moo di information juste et vrai euh, man dama jàpp sama xalaatukaay euh, Ousmane Sonko war mën a nekk ci résidence surveillée Ousmane Sonko as jullit la dafa war dem julli ji fa nga xam ne moo di juma Euh, gis nañ ne Ousmane Sonko démb mu daroon dem fële nga xam ne moo di euh, euh, siège bu Pastef pour amal li nga xam ne moo di as conférence de presse ñu gis ne Ousmane Sonko démb dañ ko gazé gazé yu métti bëri na nag sénégalais yoo xam ne daanaka Ali dañoo ñaawlu gazé bi nga xam ne gazé nañ ko le président Ousmane Sonko Ali mu doon loo xam ne métti la Sénégal fi ñu demee ba mu toll fi nga xam ne daanaka ay gazé wante ay yu ci bëri mi ngi ciy am Ali suñ Sénégal mi fa la jëm suñ chauffeur rek ne Ali donc dañu wër ruqu pavillon yi jaare ko mooy ruqu moor bi noonu la tuddee pour ñu mën a xam la gannaaw lu xew jeex na waaw jeex na dañ ko defoon boo boo fi daaw quoi. waaw waaw waaw jéem voilà Ablaye dañuy wéy rek euh, topp euh, mbir yi euh, pour mën leen a dégtal yeneen xew-xew yi nga xamante ni mi ngi am fii nga xamante ni moom moo di ci université bu Cheikh Anta Diop ñu continuer rek toppal leen yëf yi ngeen mën di ko am ci biir Feeling bu baax a baax a baax a baax dañuy ànd rek ñu ñu wan leen li nga xamante ni moom moo fi am actuellement ni ci biir université bu Cheikh Anta Diop ñu wëree na rek dem ci. yeneen secteur ndax université bi euh, yaatu na yaatu goo xamee ni wala euh, dafa am ay pàcc ay pàcc yu bari dañuy jéem a xool demee ca beneen wàll nekkee fii nga xamante ni rek moo di ci université waaw Ali mooy euh, porte bi nga xam ne maa koy gis fii nii sa dañ ko tëjoon Ali parce que ndaw ñi fee lañ doon taalee nga xam ne moo di ay pono mais en ce porte boobu dañ ko tëj képp ku bëgg a jaare ci université bi di nga jaar route de la mort war nga jaar xam ne moo di ci grand porte bi war a dugg université Cheikh Anta Diop dañu ko tëj te étudiants yi ku ci ñu ci bëri dañoo war a dem def nga xam ne moo di seen ay cours mu doon xam ne ñu ngeen takk der euh, noonu euh, euh, Ali pour wéyale jaar ci route de la bi pour mën a xam lan moo fi xew gis nañ ne xale tamit ndaw ñu temps ñu ngi doon toj féenee ci kanam a kanam a kanam a kanam Ali mu doon loo xam ne mi ngi xew ci université Cheikh Anta Diop à ce moment mais dinañ leen defal tour université bi xool na xale yi ah, na calmé wu nañ ndax ah, Ali. Mhm. Ali université xale dañoo am li xam ne moo di as caay parce que jamono yi mars ba xale da ngay jaakaar ne ñii dañuy noppalu ju mais xale duñ def loolu de Ali xale ñii dañuy ñii dem añi ñii di ñëwaat mais Ali xale université lii lan la Ali voilà Ablaye comme ni nga ko waxee rek xeex stratégie la moo tax nag ñii di étudiants yi euh, ñoom wax nañu sànq rek mooy que seen digg ak ñi nga xamante ni ñoo di ñoo di tax gis nga tàkk-tàkk yi xale yi taal nañu fi ay pono def nañ fi lu ne mu nekkoon ay jàmmaarloo am yu méttee métti métti métti la pour grenade lacrymogène yi tell ji foo toll di ko dëgg mu nekk loo xamante ni wax dëgg ne fa yàlla euh, dafay am fenn foo xamante ni sax dafay yóbbu sa fit bi boo dëgëruwul euh, dëgg dëgg dëgg dëgg gis nga ba tax rek étudiants yi ñoom seen digg ak policier ci wàllu xeex wala jàmmaarlo nekk na loo xamante ne du lu bees du lu yees lu yàgg la ba ñoom dañuy dem ba dañuy miin fii nga xamante ne moom moo di ci daara ji ñu nekk dañuy am seen i ay palang yoo xam fa la ñuy mën a jaar bu boo comme ni nga ko waxee rek daan nañu gis ñu ne ah étudiants yi kat loof la ñu ña ngay dem di noppalukul fekk loolu yëpp fekku leen ci dañuy dañuy dem wiiri ji waat beneen côté mën a jekkuwaat ñi nga xamante ne ñoom ñoo di doy doy waar la gis nga fii dem bi ak dikk bi mbooloo moo takkoo takku takku ñu ngi leen yéen a ngi leen di gis fii ñi ngeen di gis nii ñuy dox di dem ñoom ñoo di iti étudiants yu Cheikh euh, euh, université Cheikh ante Diop gis nga gis nga euh, euh, ci ci ci ba tey ci ñu ngi ni toll ci ci benn benn porte parce que université bi dafa bari ay ay ay yoo xamante ni mi ngi fi moo tax Ablaye xeex ak ñii di étudiants yi euh, dafay xaw a jafe ah, lool ci dafay xaw a jafe lool ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi parce que université bi bari na ay buntu yoo xamante ni xale yi dañ fay mën di di fël di di di mën di xeex ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der te xale yi comme niñ ko waxee dañu miin fii ah, bu bu am na rek Ablaye faw ñu wàcc jël ay réaction ci ci ñi xamante ne ñoom ñoo di étudiants yi eh, ndax eh, am na kenn koo xamante ne ñi ngi ko dëkk micro ñëw dem taataan am na ci étudiants yi ñu wàcc jël loolu ñu ñuy rappeler que ni conditions yi étudiants yi di dund dafa dafa war war autorité universitaire war nañ ci bàyyi xel sax toujours c'est vrai que nag c'est vrai que nag il faut ñu nangu ne les autorités universitaires def nañ ay efforts parce que campus bi boo xoolee campus bi boo reculer deux ans wala de trois ans ak campus bi léegi nii am na ay changement yu nga xamante ne am nañ fi. mais def dina effort yi rek du doy chaque jour li ñuy li ñuy ñaaxaat autorités yi rek mooy ñu gën a dolliwaat gën a dolliwaat effort par rapport ak euh, campus social ak campus pédagogique. Euh, ci lépp li nga xamante ne ni étudiant bi da koy soxla ak bépp lu jumtukaay boo xamante ne ni dina tax étudiant bi nekk dans de bonnes conditions ñu ngi leen ci woo gën ci taxaw bu baax a baax moom je da am boo ñu mënee ñëwaatal li nga xam ne daanaka mi ngi xew euh, depuis ce matin. Mhm. li fi jot a xew rek par rapport ak euh, li nga xam ne mooy seen euh, xeex bi. waaw li fi jot a xew man comme ni ma koy faral di waxee rek tout d'abord dafay dafay dafay baax ñuy fàttali ñuy fàttalante ne université bi autorité universitaire ni ni université bi mel ak autorité du Sénégal d'une manière générale ñoom am nañ ci wàll. ndaxte fii dafa nekk millier boo xamante ne ni dañ koo politiser milieu boo xamante ne ni mën naa ni sax. jàng bi moo fa waroon ëpp doole mais malheureusement politique moo ëpp doole ci université bi donc li xew tey nii ñun duñu bett parce que xew na fi xewati fi xew na fi xewati te li ko waral rek mooy université bi maanaam espace bi nga xamante ne nii campus du savoir la tey jii lu ñuy wax la politique moom moo fi prédominant mën naa mën nañu wax ni donc lii xew nii ñun personnellement duñu bett parce que milieu bu nga xamante ne dañ ko politiser donc lool lool loolu daal moom moo waral du ñàkk des fois ngay gis ni dina am ay émeutes yoo xamante ne nii à vocation politique lay doon. mais euh, en dehors étudiant problème yi nga xam ne ñu ngi koy jànkoonteel est-ce que certains ne se battent pas euh, contre l'injustice bi nga xam ne ñu ngi koy gis Sénégal jamono waaw moo moo moo mooy mooy mooy li ma la wax rek. en dehors de cela tamit ku nekk am nga fi nga far ba pare te ku nekk ku nekk aussi doo fi doon doo doo toog par exemple tey ji Euh, di di rester les bras croisés ku nekk am nga say conviction donc ku nekk am nga droit défendre say conviction donc loolu moom que ça soit ci milieu universitaire xëy sax xëy sax maanaam étudiants yi li fiy faral di gis yenn yi dafa